jafe na baari zaaka muritoo Tuuba doy nanu doy nanu doy loo nanu ko doy loolu doy jafe na baari zaaka muritoo Tuuba doy nanu doy nanu balaa sama te ngay doy loolu doy jafe na baari zaaka muritoo borom daaru raxmaan neex naa bari liimaan borom jëna joon la baari zaaka bari liimaan raxmaan kookoo bari liimaan borom gën a joon la bari saqa muritoo julli nga jamaa yombe way nga jamaa fali sunu màggal gi fay na ko bari saqa muritoo ban tay fas fay la Seex ma di dam xariloo ma ma feexal ñi fi na bari saqa مهدار زاكا مريدو برم تايفاك بايرا شيخ نجدن قالا ماما مسيخ الجبيرو فارزاكا مريدو برم تايفاك بايلا نجدن خيلو تمام مسيخ الجبيرو بارزاكا مريدو برم تايفاك بايلا شيخ نجدن قريلو تمام مسيخ الجبيرو فارزاكا ba Touba. mu ngi toog su ma jooyee damaa gisul ka ma. mami Modou Bousso Dieng. moo ma daan jox te dul ma laaj ma nga Touba. yaay mu ngi toog bu ma jooyee damaa gisul ka ma. walaay sama cënga yi. moo ma daan jox te dul ma laaj ma nga Touba. mu ngi toog rek mu saabul fàtte. góor ga ca Touba. waa de ca Touba. moo nu tee. faatu moo nu tee xaar. ngai monu te fatu monu te karane burito monu te fatu monu te karane kogu monu te gadu malgo sai samane burito monu te fatu monu te karane kogu monu te gadu منقطي زماني يبرفع الموجروي يبرفع الموجروي يبرفع الغليون باري سقاي مامدي يبرفع الموجروي يبرفع الموجروي يبرفع الغليون باري سقاي يبرفع الموجروي يبرفع الموجروي يبرفع ni baari saqaaye maam Seex Ibra Faal moo jara kay Ibra Faal moo jara way Ibra Faal a xalli yoon wi baari saqaaye muri tootu baa doy nanu doy nanu doy loo nanu ko Tuuba doy nanu doy nanu doy loo nanu ko Tuuba doy nanu doy nanu doy loo nanu ko aji texe Tuuba lay dellu a texe tuubaale yi dem baari saqa ay te sunu a aji texe tuubaale yi dem baari yi dem baari saqa mami modu busa jeng aji texe day bëgg xaadim baari saqa ay te sunu mbër aji texe day bëgg xaadim baari góor ña baari saqaaye murido bamba koni ba bamba koni ba murido bamba koni ba bamba bamba sama jamal maam Cerno raw ca góor ña baari saqaaye modu sa jeng maam Cerno raw ca góor ña baari saqaaye bala ay sa sundal baari saqaaye bala ay sama jamal maam Cerno raw ca góor ña xala ay sama jangay maam Cerno raw jogol na baari sakaye murito sooroor ya ca Tuuba sooroor ya ca Makka ñooyal jogol Makka baari sakaye murito sooroor ya ca Tuuba sooroor ya ca Makka ñooyal jogol Makka baari sakaye murito sooroor ya ca Tuuba sooroor Makka ñoo yem jojol Makka bari sa ya ka tuba sorar ya ka balla ay sa sumbal ñooyal sojol naa ko baari sa kaas Modu Busa Jeng ñooyal sojol naa ko baari sa kaas Modu Busa Jeng ñooyal sojol naa ko baari sa kaas balla Ibra Faal moo jara Ibra Faal xal yoon wi bari saqaaye maam Seex Ibra Faal moo jara kay Ibra Faal moo jara way Ibra Faal xal yoon wi bari saqaaye murito Ibra Faal moo jara way Ibra Faal moo jara kay Ibra Faal xal yoon wi bari saqaaye maam Seex Ibra Faal moo jara kay Ibra Faal moo jara way Ibra Faal la xàll yoon wi bari sa xaay kari watan faal ibra faal la xàll yoon wi bari sa xaay bari moo di faal ibra faal la xàll yoon wi bari sa xaay kaw sere faal ibra faal la xàll yoon wi bari sa xaay kari watan faal ibra faal la xàll yoon wi bari sa xaay